instant bi mi ngi waajalaat combat bokk na ci li wala tey ma déplacé wu fas yéene séq ak moom waxtaan waxtaan ak moom ci carrière am fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm sama gars yi kan mooy yankaaw numéro 2 kan mooy yankaaw numéro 2 saison 2022 2023 lan la fas yéene def ci làmb ji jot na bëre benn combat yàggul à l'arène nationale instant bi mi ngi waajalaat beneen combat mais lan la fas def ci saison bi saison 2022 23 lan la fas def ñan ñoy ses potentiels adversaires dans l'arène lool lépp dañ ko bolé waxtaane sama gaay yi fii ci pompier Paku euh, Paku Ferraille bi une émission waajal combat yankaw numéro 2 moy sama invité tay rakk ji lay ziar ansubila bisimila ina wali yàlla jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jaaraama mam Cheikh Ibra Fall ginnaaw ma sante yalla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant waa réew maawo bawal gi moo bàyyee ko bàyyiwuma fen di sant waa Goltapé waa marché Sam xam nga ak waa pompier fi may liggéeyee ferrailleurs yi bàyyiwuma juróom-ñaari pàkk yëpp bàyyiwuma fenn Colobane ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax rawatina waa pompier xam nga mooy loolu ak waa Difonse ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax xam nga wa salam di nuyu ñëpp di nuyu loolooy nuyoo bi waaw loolu mooy nuyoo bi Wa nuyoo bi waaw la fekk ci pàkku feeraay bi waaw gis nga ngay di fi allah fii laa di fi di fi liggéey man mbër laa mais teew dama am dama am sama job, dama am sama job, carrément saa yu ma xëyee fii laay di liggéey mhm. du ma ba 5 fu nu sama patron yombalal ma ko trop it xam nga teguma si benn lii fu nu 5 soñ sax barki Serigne Bamba ne ma demal entraîné ji xam nga teguma dara xam nga fu 5 heures jotee ma daal di dem liggéey ak sama kursu Baye Bada waaye kon Cheikh Mbaba bépp oui Baye Bada Sung Baye Bada Sung di leen béggee ñoom ñëpp di leen sant bu baax gis nga borom baax la borom baax la Baye Bada Sung la ku am yéene si xale yi mhm. ñun ña fa nekk Baye Zal fils de Bada waaw Baye fils de Bada barke sëñ Bamba ku am yéene si xale yi barke sëñ Bamba di son si ñun tout le temps mhm. barke Alxuraanu Karim du saa ñun ñun ñëpp xam nga lu baax rek la ñuy am barke yàlla du koy ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom fay xolam. waaw waaw waaw ma laaj la booy yéen ferrailleur lan moo tax ngeen ñuul lan moo tax ngeen tilim yéen ferrailleur yi booy xoolal ni nga tilimee xoolal booy bii xoolal booy bi sa ñuulaay mel ni xoolal booy bi lu tax ngeen tilim yéen booy ferrailleur yi. waaw gis nga ferrailleur joob rek. yaa gën a xam huile ñuul kukku. non huile yooyu noonu xam nga du ah, huile bi lay demee. lu mel ni moteur doo koy dagg xam nga mooy loolu noonu il faut nga tilim yaa ma gën a xam. mais boo fi jógee koo fekk fii muy liggéey tilim bu fi jógee bu fi jógee bu wàccee sangu ba set aligné lu nice bu rombee doo ko xàmmee gis nga góor yàlla liggéey boo ci tolloo rek liggéey ko damay damay dama leen di kaañoo yéen dañ leen war a encouragé gis nga góor yàlla booy xëy rek di dóor waar nga fekk ko fa muy liggéey mu tilim ñuul kukku delloo ko cër bi moom yaa ngi may dégg parce que bu jógee foofu noonu bu liggéeyee ba wàcc fa muy liggéey dafa bëgg am lu ko lew ñii am na seeni moroom yoo xam ne tey ñom ñoy costé ci bokku ko ñi di agressé waté dañuy bay nga dem liggéey ba am dara nga rombu ñu sëqatoo la door la nangu li nga yor légui bo féké boy ñom ñu kal ko fan dem liggéey pour lan bëgg am lu lew ñun da nga leen wara jox ci respecté leen parce que fañuy liggéey buñ tilimee buñ wacce aligné buñ la rombé nga ñi ay noble lañ non la fa démé kon boy respect à vous tous hein respect à yeen ñëpp boy boy yow sa yang kaw yang kaw sa histoire ak lam fa la yang kaw lan mo la dugal ci bëre non man dama juddu nag

loolu moom sa papa def na lu ci làmb wallaahi alhaasim gis nga noon la demee mais làmb fii ci na fi lu ne wallaahi mais gis nga lam moo waxul dëgg rek barke yàlla lam moo waxul dëgg man foofu laa bàyyeekoo dama judd fekk service si gaale bi xam nga muy taxawaalu kenn jërul ma judd si famille bi xam nga làmb nag nekk lu ma yàgg neex moom bu dikkoon wallaahi bu jógee dakaar Dakar du dikkee man si moom si wetam rek lay toog ndax lan li ma yëg si moom ni mu nekk mbër mhm. ma te ko nag di gis moom li muy def gis coono yi mu siy daj mhm. mais inshallah rabbi limu bay bàyyi si laam loolu bëgg jël ci da nga juddou fekk ngeem li ci bir gi eh, ci bir kër gi nga for rek dem bëre ji da juddou juddou judduwaale dédétu mbeur sa papa dafa def lu ne ci làmb mais boy tay nga dédé sa papa limu def ci làmb sa papa limu def ci làmb yankaaw numéro 2 sa papa limu def ci làmb bala nga koy def di nga liggéey ba dé parce que tay amul foy taxaw ci làmb ne kati dé ñu ne la xamuñu ko ndana ndim fi daan ndana yi fi daan yang ngi may dégg ba ci gàllankoor yi ko dal après ñun ñoo ngi suivre de près yow nga ñew nek domam nak xolal mission bi mom fim ko agalé fim ko yamalé yow nga wara keuf këf drapeau bi nga wara jël relais bi rek rek yobbu ko ca kaw est ce que yow sa papa limu def ci lamb est ce que mën nga ko def ci lamb o oh, inshallah allah lima la wax man lamb ji may taw may ciat limu bay ci lamb mom fimu baye man fofu la bëgg tamalé inshallah limu allah ci lamb man dama koy jël ñaanuma ken inshallah allah ñaanuma ken te aussi li ma koy may jàpp naa ne it loolu noonu maa ngi si tout le temps fu ma toll carrément maa ngi si li ma war a nekk te moom it carrément mi ngi ma siy gunge billaay walaay santuma dara lu dul entraînement xam nga ne kon moom fi mu bàyyee foofu laay tàmbalee mais kon xam nga ne moom tey jii maam moom li mu amoon man awma ko sax mhm. ndax moom mën naa ne moom moo ma gën a métti le jamono te essayé xam nga man moom lu bëri warut ma essayé lana ma war moom lu may digal entraîneur rek li si des bàyyi ko samay loxo wallaahi loolu la may wax lool la may gëmloo. parce que moom xam na làmb. xam na xam non macha allah. xam na te moom li ko gàllankoor ci làmb. yow bu téye sa loxo dina la moytu lii baaxul. bul jaar fii baaxul. fii boo fi jaaree da ngay faxastalu te moom amul woon lool. te yow am nga lool. wér billaay man da toog deux semaine yoo xamante ni dégguma conseil ma wax si man conseil ma conseil boo xamante ni bu bees tax lay doon si man. billaay wallaay sama doom defal nii defal nii defal naa defal naa wallaay te conseil yooyu d ma ko toppee damay gis résultat bi nii. barki Serigne Bamba billaay wallaay talaay man looloo tax man lam dama ne man lam incha allah dama si nekk champion. ana beneen défaillant bi fils de Kati. fils de Kati au passage ma koy nuyu di ko ñaanal ndam lu sedd guy si barke Seydouna Muhammad fils de Kati sama doomu baay la. sama doomu baay la sama doomu baay la. ma waaw noo bokk ndey ak baay sama doom baay la moom mooy fils de Katy waaw moom mu ñëw ne mooy fils de Katy waaw Katy de am na ñaari représentant ci làmb ji nag yoo xamante ni dañoo dikk ak seen doole ak seen xadar ana défayant bi sa turando yow yow yow dag booy nag booy mere naa la mere naa la mere naa la man sa tur bi su ma koy wax sax damay hésité yankaaw défayant boobu noonu nga dem tuddee ko sa bopp toj waay yow waay daf may kaañu yankaw daf may kaañu moo tax su ma toogee dama yàq deram yankaw fu mu toj ba tànk ko tuddee sa bopp yow nga bàyyi fi Balla Gaye Modou Lo Tapha Tine hmm, bañ nga fi ay champion nga bàyyi fi ñëpp dem tuddee sa bopp yankaw pour lan non kooku nag mënuma wax si moom di jàmbaar jàmbaar la dama ko siifur hmm. gis si moom fulaak fayda wallahi man doomu aadama balaa ma jël rek di la tudde sama bop rek damay xol ba gis la xam la yow yaay façon ban lan nga gis ci yankaw ba tax nga bay fi ñepp tuddee ko sa bop dama gis ci mom jom fula fayda xam nga bëgg li muy def man li muy def man ko carrément jom fula fayda bëgg li muy def ba paré man ko lool nga gis ci yankaw ba tax nga bay fi ñepp tuddee ko sa bop carrément gis na ci mom loolu non mais buñ ñu deug rek nak mom ndaanaan la la waxantee deug rek yankaw bu bu feccee man man yankaw bu ñubé bu ñugé bu wàccee ñuk lumay lumay yor dama ko ko yéene yankaw dafa mëna a bëri yamul kessé ci arène bi mais da nga sa yo duggee bentali bu né ana yankaw ñu né la gaddu na sakam dem na ci all bi mbapati na té yankaw day këpp yelwaan yankaw nit day dem bañ na ji dem na dem na bo jaaree ci yoonu muk non la fi defon réparé ba réparé taxawé di japp gaay ji dugal top 5 di classé 4 4 2 yankaw moko freiné dan ko jël bu reuy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëgguma xawi ay sutura dafa man lu muy def yankaw sama sama sama boole sama boole man li ma ci metti rek moy séré jaamu tugul loolu te mom nanguwul loolu nanguwul loolu moo tax su ko jéko dama koy classe dama koy mais tudde nga sa bop ndana na mais yow sa wàllu bopp est-ce que yow ndaanaan nga. non man moom xam nga li naan saabu du fóot boppam hmm. damay nanu na wàllaam ji bàyyi may nu tuuti seetaan fii ak deux cent. Hmm. nanu seetaan nanu seetaan siifur nu nag may nu fii ak deux cent. yéen waa école Cheikh Mbaba boo yu nekk école yéen da ngeen bëgg a wane ne yéen a moom làmb ji parce que. may ma tuuti rek ay boo yu réew ñoo fa nekk ah ba Bada Soug maa ngi koy ziar mais école Cheikh Mbaba boo yu réew fa nekk Mor Kankang 11 combats 11 bëree nga ne waaw bu feccee nga ne waaw bu taxawee summee sumeeku taxaw ci géew boo ko xoolee ne waaw jëlal benn ñagas numéro 2 défaillant la 7 combats 7 victoire mën a bëre mën a fecc boo ko foo ko fekk jàpp na ne booy bu taxaw ci kanam dala naan booy nga ne ko naan mu ne la xajal ma ma jàll jàpp na ne moromam du ko teree dem fils de Kati sa doom baay beneen défaillant ngi noonu 5 combats 5 victoire yaa may dégg trompeur génnee na sarax benn yoon benn defet mais dafa taxaw ci 6 combats 6 victoire septième combat bi la bëreeg Lastander Lastander daan ko mu jóge ci affilé bi beneen victoire yaa ngi gis ah ak ñoomun ceeb bu xonk hmm? école yi Cheikh Mbaba moo bari ay phénomène te man booy ni ma leen gisee ay ñoom Zal fils de de Bada ay ñoom ay ñoom ay ñoom Bada Faye kii numéro 2 Cheikh Mbaba numéro 2 yaa may dégg école Cheikh Mbaba dafa bëri ay jeunes espoir te phénomène bébé Diouldé numéro 2 internet gis nga gis nga dafa bari ay boo yoo xam ne dañ jàpp na ñëw moom làmb ji te bu ñu duggee ci géew dañuy def jom fulla ak fayda ay kii bébé julde numéro 2 am na jël yu muy daan des nga ne kii lii fan la ko jëlee yaa may dégg internet gaa sax muy nekk ci ay tolof tolof mais guerrier la yaa may dégg mais boo yéen booy école euh, Cheikh Mbaba lan la lan la da ngeen bëgg a téye làmb ji non làmb ji moom dañoo dikk pour téye ko pour téye làmb ji pour téye làmb ji ndax parce que li tax ma ne dañoo dikk pour téye làmb ji doonu ay wax kese loolu di wax loolu loo yéen a ngi koy jëfe koy jëfe carrément te gisagoo dara sax yéen a ngi koy jëfe gisagoo dara noo si noo ngi siy liggéey gis nga loolu lépp dañ si ànd ak sunu kër su père Bada père Bada Faye billa euh, Bada Bada Sum Sum mu ñuy mu ñuy tegg lu metti di nu tette di nu tegg si yoon nii def naa te wallaay du digal dara loo xamante ni lu nuy gàllankoor la di di encouragé njaaxum sama waay di encouragé njaaxum njaaxum làmb ji làmb ji man làmb ji làmb ji sañ naa wax na ñoo ngi soog a gis njaaxum fu mu daanoo ñoo ngi gis njaaxum fu mu daanoo durant ces dix dernières années njaaxum su ma juumee ba ko guy gi daanee ba daanoo ci guy gi boobu ba tey kenn gisul njaaxum fu mu bëree daanu ñenn ñi da leen di yenu ba ci kaw yaroo baax noonu la ko def dafa yenu ba ci kaw dóor ci suuf yaa ngi may dégg combat yi ci topp digganteem ak Boy Faye jour combat Diène kayre booy Seye Boy Faye nekk ci lancé bu exceptionnel njaaxum ma ko freiné ku fi jaar njaaxum freiné na ko man maa ngi soog a gis lamb ji ñu ngi soog a gis njaaxum fa mu daanoo gaa nag am na benn défaite nee nañu après recours après recours face à Bara Ndiaye xaw ma loolu ba xam am na wala amul ah man ci li ma fekkee jour ji moom lañ jox victoire kon njaaxum njaaxum ndaanaan la bëre na daanu mais bu mu ko découragé benn yoon na teguwaat ci yoon bi ka ko daan war na ko mën a daan bu dee tonnerre moo ko daan tonnerre daan na njaaxum loolu du gàcce na ci teguwaat nekkaat ci si ñëwaat retour jëlaat place am loolu moom ko koy man jàll koy àggee booy yow yow sa palmarès lalla fils de Kati fils de Kati bëri nga arène lo yankaw may nan fils de Kati yankaw arène bëri na fa ben combat ben combat nga bëreegum arène euh, jouru combat face à Giro Seras fallu Ndiaye ala la tête de la structure Ndiaye production mo organiser won nga bëre akan kan bu guy ga Siteu bu guy ga moom nga bëreel gën nga duggu gis nga def na def na infraction jamma gën la duggu hein xama ki day bandi bandilu mu dem duggu jamma gën boo jàmmagën bu ñu la tàncee ba bàyyi la di nga xam ne lépp dëgg la bi nga demee bi nga bëreeg Siteu bu jàmmagën booy may ma sama jàmm booy bi nga bi nga duggee nga bëreeg Siteu bu guy ga ndeysaan dégg naa dalaa yenu ba ci kaw a kaw xiiral la nela viiri viiri viiri nel rel la ci suuf romb la dem yoonam dégg naa loolu la la def de non Siteu bu guy ga firib bip laa wa def luy loolu firib bip am xalaat heure bi dafa soufflé non frère bim la bu koy gëjël la ci kaw door ci suuf non sidi est ce que sétan nga est ce que combat bi yow ya rapporté combat bi mais dama yaakaar da gisul ni mu démé amma ko ya war mais dama rek non mu non du yow dong ya ko reporté hmm, kon man ma yuxu non nan nan eh, yankaw numéro 2 dan nako gis nga reporté bu neex bobu nonu lol lol yow ya, la billaa kooku frib bi fu laa woo def. arène nationale arène nationale. nga jàpp si te bu guy nga daan jël bu rëy. waaw lu leer jël bu gaaw bu amul benn werante maayi ma ko dara ndax parce jël benn werante ma ko dara ndax parce que la ma liggéey si combat bi la waaw looloo tax ma xam ne man keneen ku dul si te bu guy gi sax du ma taaru maa taxaw moom di bëreeg moom minute mu may yaabu keneen ku dul Siteu bu guy ga waroo tax moom minute di bëre ak moom. non loolu mooy sama ngëm-ngëm. booy nag je vais dire une chose. foo dëkk réew maawo. waaw réew maawo réew maawo laa dëkk. boole ay réew maawo fii ay ay reefan fii ay yooyu noonu yéen da ngeen bëgg a ñëw fii tawoon fii ñëw imposé wu jàpp booy tawoon di leen noggatu du demee noonu. waa xanaa gis nga sunu grand tafatin li muy def. sunu grand tafatin li muy def. gis nga man bi ma gisee maa xalla maa xalla bi combat bi taxawee bi ma gisee affiche bi Bombardier Tapha Tine dama ne pëli tey ngeen dee dafa Tapha dugg na ci kër gi Tapha na bàyyi pël yi dem bëree njaago yeeg séeréer yeeg soose yeeg olof yi bàyyi pël na bàyyi pël yi non Tapha war a jël si laam sax noo ko jëlul non mais na bàyyi pël yi nañu bàyyi tout tranquille ñun pël yi li ma la sonal nañu ñi ma war a jël noo ko jëlul si laam gars yi dañ koy daw billaay walaay mais dóor dóoraat dóor dóoraat ne deux victoires sur Bombardier Tapha Tine moo ko fi def deux victoires les lutteurs en activité mbër yi fi ne instant bi Tapha kese moo ci am deux victoires ci Bombardier dóor dóoraat ci Yékini Junior man moom wax naa ko waxati ko nee naa yéen bawal bawal yi Tapha Tine leen da leen dese mooy jël couronne bi teg ko fii yóbbu ko bawal kese la leen dese mais ndam bu ne victoire bu ne jox na leen ko buñ waxantee dëgg rek buñ waxantee dëgg rek tax ma koy kaañoo mooy man moom séeréer du ma la may dara man su ma xamee ne diw séeréer la lu ma neex laa lay wax loolu dañ koo séex diggante pël beeg séeréer la ñuy waxante mais bu ñu waxantee dëgg rek Tapha Tine lenn la dese ci làmb ji mooy jël couronne bi teg ko fii yóbbu ko bawal benn yoon da mës a am combat royal c'était en 2013 ñoo ngi 2023 fukki at benn roi de arènes nanguwul bëri ak Tapha Tine dix ans plus tard benn roi des arènes nanguwul bëri ak Tapha Tine mais nag de toute façon mi ngi ci yoonam mi ngi prouvé mi ngi prouvé mi ngi jàpp di wàccee yàlla nañu may fekkee kan ba ci ba ci kanam euh, ñu ñëwaat ci yow instant bi bëri nga daan Siteu bu guy ga foo jëm yow fi ma jëm na man na ma gars yi jël rek nu bëre waaw ba tey sama sées moom dama ko jël du la waxee dëgg sama sées dama ko jël ba tey teg ko biir jàmm gën. génnal jàmm gën. non jàmm gën du ma fa gën. génnal jàmm gën. parce que la ma bëgg li ma bëgg fekk defuma ko fa noonu du ma ko fa génn. non maa ngi jàmm gën ba léegi sées. ngay génn jàmm gën booy dinañ la téye def la lu metti booy jàmm gën mbaru jàmm gën. booy waxuma ak yow de waxuma ak yow. booy yee wax non non waxuma ak yow rek moytu leen booy jàmm gën yi nga ne caatu man yow da ngaa ko yow xamoo lamb yow football ngay seetaan bàyyi leen pël bàyyi leen pël yi non non bàyyi leen ki ki ki muy tudd kooku dafa garaaw dafa dangereux booy boobu noonu eh bu ko tudd bu ko tudd de bu ko tudd non dinaa ko tudd lam man lam gisoo li ma la wax man lam xooluma si lu nooy lu metti rek man lu ñuy bëgg man loolu laa bëgg te ñii nee nañu caatu foora na caatu foora di gënu bëri maanaam moom ñii jour combat ci kaw la ñuy aju boo yow noppi da ngaa rëy lamiñ boo yow da ngaa bëri wax boo yow ñii gis nga ñii ñii ñii jour combat dañuy ñëw aju ca kaw ci a tribune ba la ñu aju ñii noo may dooleel ñii du ma gëstoo sama ginnaaw rek damay am fit mais yow yaay dugg ci biir bi non amul problème si biir géew bi man man na ma kaa réglé ñan ñooy ngaaka wax caatu fora ñoom noonu yaa ma a xam ay mooy ngaaka waaw kii mooy ngaaka ngaaka bu mor kankaan kii mooy ngaaka yow ngaaka nga yow yow ngaaka nga sa wàll bopp yow yaay ngaaka bu mor kankaan ah ngaaka bu mor kankaan bu la Youssou Ndour tàncee ba bàyyi la Youssou wa wa tey toogal toog bu lay da ngay wax toogal toogal toogal nii toogal nii toogal nii toogal nii wallahi wa taalaahi bu leen Youssou Ndour yow yow yaay ngaaka ah? waaw man waaw ngaaka waaw ngaaka nga waaw naaj gis nga yi fi ngaaka ngay def waxi ngaaka ngay barke alxuraanu karim kii moom jaadu jolof combat bu neex la ak jaadu foora waaye ñun génn ñu jaamu gën ba léegi ñoog ñoom ba ñu sita barke alxuraan léegi dañ ne yow yaay ngaaka may ma tuuti dañ ne yow yaay ngaaka bu Mor Kang Kang Mor Kankang moom bés bu ko Youssou Ndour tàncee ba bàyyi ko Youssou Ndour bu école di Père Balla Gaye Youssou Ndour bu Père Balla Gaye bu ne kirtimtee Mor Kankang gis nga yooyum yooyu muy def noonu ay bëreem yooyu noonu di daan ay jëlu yu di kelemeleem yooyu noonu jour boobu du def dara bu ko Youssou Ndour tàncee ba ko di nga dina xam ne lépp dëgg la Youssou Ndour daa sibul ni mu demee rek yow yaa sibul naka waar Mor Kankang moo sibul naka waar moo xamal la dof bi la jël fu mu ji moo Youssou rek ji ngeen di jaawale ah, moo di moroomu Youssou Ndour billaay wallaay wa taala ko Youssou Ndour tàncee ba bàyyi ko ah, dina delluwaat ci ay leçon dina delluwaat ci tëpp na ma rëbala dëb gane Youssou du kaa du ko jaamee dañ koy defeere barke arxuraan Youssou Ndour du kaa du kaa yaa ñoo xam ne ñu xamul ma tuuti may ma tuuti ma wax la ganeen noppil maa ngi ñëw ci yow noppil de noppil noppil maa ngi ñëw ci man man man laa lay wax affaire bi du question la leneen nag affaire de derby la quoi derby bu ñu ne ah, mooy Barcelone Real Madrid yaa ngi may dégg waaw le classico derby derby Géejawaay Bawal Youssou Ndour kese Youssou Ndour kese dafa dugg Bawal daan fa Tonnerre dugg Bawal Tonnerre magu Mor Kankang Tonnerre magu Mor Kankang muy leer Tonnerre de sama waay sama xarit Youssou Ndour da koo jàpp daan Youssou Ndour dafa dugg Bawal jàpp ñagas rof ko ca xabal wéeru ña ñagas ñagas tàlleeku ñaret am na keneen kum fa daan Bébé Diouldé Bébé Diouldé fii la woon au stade Iba Mar Diop Youssou Ndour da koo jàpp daan kon Mor Kankang magam yi Mbaye Diouf Mbaye seen papa Mbaye Diouf la ilaha illallah Youssou Ndour moo bon moo soxor Youssou Ndour moo mën lu bonte di ko def quatre personnes xoolal quatre mbër la daan bawal seen papa mbay Diouf Youssou Ndour da koo daan Bébé Diouldé Youssou Ndour da koo daan tonnerre 2 Youssou Ndour da koo daan ñagas tonnerre euh, euh, Youssou Ndour da koo daan léegi Mor Kankang foo xam ne ñoo ñëpp dañoo échoué Mor Kankang lu mu mën foofu Mor nga dafa ñëw géejawaay daa ñëw géejawaay daan John Kara. waaw daan na fa John Kara. daan Boy Dieng. ah Henri Boy Dieng. mi. rakk ji maa ngi laaj waaye yaa ngi tontu ah maa ngi lay attaqué waaye yaa ngi défendre sa bopp dama ne moom ma waxaat ko gars yi dégg ko damane ne Youssou Ndour le derby Bawal Youssou Ndour dafa dugg Bawal daan fa Tonnerre 2 daan fa ñagas daan fa Bébé Julde daan fa seen papa Mbaye Diouf yow nga ne lan. Mor Ranga dafa dugg géejawaay. daan daan John Kara. jóge fa daan Henri. Boy Dieng waaw. jóge fa daan Aliou Seye Senior. quatrième bi mooy Youssou Ndour. billaahi. kon yéen da ngeen ñëw pour égaliser. égaliser forot loolu moom kenn waxatu ko. ah égaliser 4-4 ñu ne la derby Bawol Géejawaay Mor Kankang signé na 4 victoire ak Géejawaay waay Ndour signé na 4 victoire ak Géejawaay ah loolu la. non Youssou Ndour am na si defet de. noo ko yaa daan na ko reefan. non non boobu waaw ñu leerul waaw suñu kanam ñu doon xale yi ndaw nga lans eh, daa yàgg a bëre de bu muy bëre boobu moo nga dugugul sax ci lam bu mu koy fekk rek loolu la ko mënee nag waaye yow yow gis ko jiitu Mor Kankang ko Mor Kankang kan mooy Mor Kankang man damay dégg Mor Kankang rek dégg naa mooy def kelemele genre yooyu ko dama koy dégg rek waaw lam ji xamagu Mor Kankang lu ñu gis nii sax Mor Kankang lan la Mor Kankang waneegut bëreem billaahi moo day ñëw nii booy kenn dëggalu seen boob damaa bëgg gars yi dëggal seen bopp xeexal moom bëreeg moom moo seen diggante ak Youssou Ndour loo leen waaj doyul moo daanga mooy borom top 5 waaw waaw xool 2018 la dugg si lam boobu léegi am na fi 4 4 top 5 ku mu daan ak façon bu mu lay daane bu ñu waxantee dëgg nag moom dafa mën a bëri daanaan dafa mën a bëre dafa mën a fecc dafa mën ambiance macha allah waaye moo daanga boo ko def booy kooku papa mbër la woon papa lu mu def si lam moom du def sécurité mooy papaam. sécurité sécurité waaw. papaam da daan bëri. papaam daanaan la woon. toj na bawol gépp billaahi. papa Mor Kang Kang toj na bawol. loola moo defagul dara. Youssou Ndour dafa dof rek billaahi xamul lu mujj jël sax. di ngeen di loo leen waaj doyul. loo leen waaj doyul combat bi loo leen ci def doyul. parce que man man moom man géejawaay laa far man ay booy bawol séeréer ñàkk jaamu tukulóor yi man du leen faral li ma la mën a wax mooy que ne loo leen waaj doyul Youssou Ndour dafa bari doole gis nga Blindé mi jàpp gars yi dóor ñuy daanu Blindé bu parcelle jàpp gars yi dóor ne këng ñuy wàcc Youssou Ndour da daan jël bu rëy Youssou Ndour dafa def lu lu yéeme ci làmb attention Mor Kang waaw Youssou Ndour garaaw li wax sax mi ngi bëgg a bëri ba suur ba rek barke Alxuraan ba suur ba billaahi ndax waaw doon tey tey pare nañ barke maam Cheikh amagul date loolu kese ñu métti dañ ko war a gaaw combat mooy mbër bi daa war a bëri trois combats ci saison bi wallaahi de booba léegi mbër amagul combat mooy dafa toll ci bëri trois combats par saison bi passé trois combats lañ def mais booba léegi mu ñëw bëri 3 combats 3 victoire ngeen def saison passée mais ça veut dire que euh, rakk ji ngaa ko yéen Mor Kang Kang fan ngeen ko fan ngeen ko fan la jëm moo tax jëli ñun waa Bawol roi des la couronne Mor Kang Kang jël couronne bi yóbbu ko Bawol wallahi Mor kafut réewut barke arxaan lam kisee ko ñor amul benn liggéey lu dul lam xëyut gontul Mor Mor fu mu jëm de barke Seydina waaw yow la ngay wax maa ngi waat man na xolal man bëgg naa di attaquer mais su may attaquer damay bëgg ngay riposter di défendre sa bopp waaye li ma teg lépp teg nga ko merci waaye merci waaye gos mu ñëwaat ci yow euh, rakk ji génnal génnal jàmm gën génn mais eh, booy booy may ma lan la lan la non non def defa déglu ma déglu ma booy ma gën jàmm gën mënuma gën jàmm gën daa jàmm gën la ma fa bëgg defaguma ko fa yow man sa mag laa su ma da nga maa war a déglu bu baax déglu ma wax la déglu ma wax la xoolal jàmm gën yaa dafa am ay booy yu yoo xam ne dama lay tuddal nga moocu leen baaxuñu man ñooñu noonu nga may moytuloo ñooñu laa bëgg déglul moocul doomu jàmm gën moom laa bëgg moocul caatu jolof ñooñu laa bëgg moocul mbay xadaa ñooñu laa bëgg moocul Laurent Ndiago moocul Lis Ndiago moocul Souley Gaynde ñooñu laa bëgg xoolal ñooñu man du ma leeroon ne du ma du ma leeroon ñooñu du ma bëreeg ñoom si lamb tekki sama séer lu leer laa sama sées maa ngi ko tege biir jàmm gën moocul pël bi caatu foora caatu foora maak moom combat la na ma jël nu bëre lu leer laa lay wax caatu foora li ma mën si moom ak a bëri bés bu lu xool bàyyi xool bàyyi dama déglu fii Sidi bés bu lekkee avance bi ba nu géewal nu biir ba nu géewal nu arène nationale man ak moom ba heure bi soufflé ba génne suñu diggante ne non dinaa ko def lu garaaw doo def dara doo defee dara yow loo mën a def caatu foora yow caatu foora wallahi taala bi la gën a déedéet tarkindaa bi la ñuy wax ni booy xoolal tarkindaa bi doomu ndey sita du boobaa tarkindaa bi da koy réer wallahi da koy réer du janoog man dina tar leneen lu dul lu fay am maa koy def du def yankaw yow yankaw <laughs> yankaw senior yankaw numéro 2 defal attention yankaw yankaw yankaw bul dugal sa bopp ci ci problème boo xam ne pour nga génnaat ci day jafe non loolu du problème pour maak ñooñu rek loolu du problème du leen neexoon ñoom ñëpp mën naa daan si benn game waa jaam a gën ñoom ñëpp ñi ñu yaakaar ñëpp mën naa leen a daan si benn game. mën nga daan caatu fora. caatu fora mën naa woo daan si benn game. moytul ma booy moytul sama fit bi ku la neex limbal ku la neex man xam naa caatu jolof. caatu jolof caatu jolof borom français kooku maanaam moom du laam sax. Euh, waa léegi am na koo xam ne moom bul tudd turam. bul tudd turam bul ko tudd bul ko taas mu njaago or bi ñu naan ko Laurent Ndiago waaw. non kooku aw ma lu may wax si moom. moo la moo man moo la ñaari yoon moo la mën ñetti yoon moo la mën fukki yoon Laurent Ndiago ko moo la dàq fecc moo la ëpp doole moo la dàq bëre moo la gën a doon bandi moo la moo la ëpp coow kooku du ma jëlee dama koy jàngal bëre kan ngay jàngal bëre Laurent du ma jëlee dama koy jàngal bëre xam nga mënta bëre du ma Laurent ku def trois combats trois victoire nga ne mënta bëre kooku ma jëlee ma jëlee ko kan ngay corriger da ngaa gis erreur bu mu def dinaa ko corriger si xeex si bëre. yow yow yow yow yow yow yankaaw yow du ma Laurent Ndiago jëloon tey maanaam moom nga géewal lu fee ma corrigé ko si bépp côté. yow Laurent Ndiago ñi mu daan sax mënoo faa am rëpp ki mu mujjee daan Alliance Balde boo ko jëlee mu dóor la nga daanu. gis nga ñooñu duñu ay mbër man si man pour man pour man Balde dóor mu daanu. waaw oh, Alliance Balde ñooñu xooloo teguma sama bët teguma ko si ñooñu. ko ñeme nga alliance dafa bon dafa soxor alliance day jàpp gars yi dóor ñuy këpp rek day jàpp gars yi rek dóor ñuy daanu wër na yàlla alliance Baldé gis nga ñooñu noonu ku ma si jëloon nga nga weddi leen barki Serigne Saliou Mbacké sa waay sa waay yow kii fu mu jëm kii gars yi nañ koy jël lan lañ koy ragal eh, kan moo ragal kan moo ko ragal non kan moo ragal kan moo ko ragal fu mu toj bañ koy ragal kan kan moo ragal waay waay booy may suñu kan kan kan caatu combat la moom moom caatu foora waaw moom combat la yow sa diggante gi yooyu eh eh, eh eh même sa diggante yàlla yow di nga bàyyi. yankaw muy dugg ci caatu foora yow sa digg. bu ñëwee léegi man maa koy jël. nga jël avance bi. barkeel xanaa doo xool. man nga naan xanaa doo xool. gisoo de. barkeel la ñun la dof yi. maa gi gis de maa ngi xool bu baax de maa ngi booy may la ma sama man gis de booy man eh. xam nga lan ngeen di jaay affaire affaire de mafia ngeen di jaay eh may ma tuuti affaire de mafia ngeen di jaay. mafia boo duggee jàmm gën boo duggee jàmm gën xoolal da ngay toog kuul sa kuul wóor na yàlla bu dee mafia rek jàmm gën la fekk baax waaw jàmm gën dañuy xaar bilaahi waaw bilaahi dañuy xaar est-ce que xam nga may matu bawol fan mooy bawol man damay dégg bawol rek bawol mooy fan bawol mooy fan fan mooy bawol bawol xama bawol yow fan mooy bawol waaw xam de bari fan mu nekk dafa laqatu Ah, moo tax man man damay jéggi rek bawal bawal man xaw ma foofu. bawal dafa naqaree dem. Hmm. bilaay walaay. waaw léegi yéen ngeen ñëw fii bëgg a jàpp booy taw nit leen nokkantu du demee noonu de. du demee noonu. non ñun noo bëgg ñun incha allah dañuy liggéey si lam ba nu ba nu xam bawal. ay réew maaw fii ay reefan ay ay ay waay yow waay yow. qu'est-ce que ça veut dire bëgg ngeen jóge seen euh, seen town ñëw fii jàpp booy taw nit di di classé. du fekkee bëgg nga dégg dëgg du ne lam dëgg dëgg dëgg bawal bawal moo tax barké Serigne Bamba ñu laa gis nak da ngeen taxawé position wu da ngeen taxawé position wu bool bool ñoom mom lamb ci mom noo ma wallaay mom lamb làmb lamb ji fu muy mujj loxo lay mujjé mais nak mais nak mais nag blague à part hein, modestie à part mën naa nangou né quand même Lamb. bool bool da ci am cieur bu reuy xolal xolal depuis nak ci promoteur hein? depuis ci promoteur ay boné ne euh, Assane Ndiaye bool production ça veut dire quelque chose boné fallu Fallou Ndiaye production ça veut dire quelque chose i ñing bawal bawal la yaa ngi may dégg petit petit production Ibou Sène petit bawal bawal la eh, eh, kii prési prési bawal bawal la am na ñeneen ah jéy jéy seen jéy seen bawal bawal la yaa ngi may dégg non no non bu ñu wax waxantee dëgg rek man moom damay ruube man damay kaf rek ah, mais bu ñu tolloo ci wax dëgg rek tamit dama la wax li fi am bu ñu ne ci pro côté promoteur yi gis nga ñu ma limal bu ñu ne ci mbër yi boo ne bawal ti première premièrement ci euh, da ngay cité Tapha Tine yaa ngi may dégg mais boo ne Tapha da ngay ci njaaytin dafa leer kéwal mbay guy gi Nokia moor Kankang Tonnerre 2 Bour Sine eh, eh, ci alliance biram yaa ngi may dégg dafa bari ah Thiaw Sarr Thiaw Sarr Talla Talla Thiaw non dañoo am cër ci làmb bu ñu waxantee dëgg rek du ma ne du ma ne ñii ñoo moom làmb wala ñee ñoo moom làmb làmb ñun ñëpp ko bokk pël yeeg séeréer yeeg njaago yeeg olof yeeg soose yeek ñun ñëpp ko bokk mais nañu nangu tamit ne bawol bawol dañu am cër bu mag ci làmb loolu nañ ko nañ ko nangu lam ji ñun ñëpp a ko bokk mais kenn ku ne xam nga ki la man maanaam jàpp naa ne lam ji baal bawal yi nooy boroom te fa muy mujj si seen i loxo lay mujjee lii man lii maa la ko wax non kooku non Arafas numéro 2 dafa war a war a bëri dimanche sama combat sama combat ak moom la ñu njëkk a doox Arafas numéro 2 sama boy la sama koñ la dëkk Malika la dëkk moo man kii moo man boy yii je le connais très bien démb la doon eh, si moom ndax parce que dana dox moom ba ne saaye mu jaare ginnaaw delloo avance ko jàmm gën la dugg soo li ma la wax lam man ma demoon ba di seet lu nooy dem tikki sama ngeen dem toog euh, yankaw ñeme nga alliance ñeme nga kii alliance balde ñeme tey du fanaan noo koy def dama siy dem seeraas daglu si partagé li si des Baye Fall yi. avance wu alliance alliance Baldé ngay jël. dem Seeraas. nga jën ci. xool fa ndawal nga gën a duufee. waaw ma ne waay ji laalal ma foofu. ci ndawal. ndawal après. lekk reer ba rek li si des ba partagé. avance su alliance moom ngay jël jën ci ndawal reere ko est-ce que reer boobu dana rees. day rees. barke yàlla day rees. alliance Baldé yow laay waxal. avance bi doo ko dinaa la teg lu metti lu leeral te sa avance du ma si jotoon Baye Fall yi toog fii laa koy partagé. Alliance Baldé Garga Signor Garga Signor maa ngi koy yóbbante capitaine bu ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la capitaine xam nga capitaine. di si saan waaw.